mën njaay ngay nekk yaay bëroo di njaay àlla bi yàlla moo rëbb bi saa bi njaay mbaroode an uma mar jógal fii man maa la gën a dégg taa ñëwal taa ñëwal taa waaw fuuta déglu leen waaw ah sembu bi yaay borom njee ay no man ma teg ko bi ku dul ndaanaan doo fa dugg. waaw gaamu ndaanaan man gaam bu ma duggee du ndaanaan yow. ah yow bu dee làkk man daal comprendre lul. ah loolu la ngay wax. kon yees. en tout cas ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax. Euh, mais mais mais tey moom tabaski bi validé quoi waaw tabaski bi moom tey validé instant bii nii tem nag gars yi defoon naa leen ko fi ñamal nañ ma ko dañuy dañuy dem yow yow. da def tooxi doonu gu rëy mhm. saa yi da laa jox cent millions nga lekk xaalis bi ñii nag ay policiers lañ dañuy ñëw pour jàpp si la te dërëm la ñu àndal mhm. yaa ngi toog si kër gi nag ñu ngi ñëw pour jàpp si la dërëm mhm. saa yaa ngi nii gars yi ma goog waaw mais balaa nga daanee foofu dama ko bëgg ñu benn affaire rek waaw muy scénariste bi nga xam ne moo bindoon li ma doon liggéey waaw muy muy waaw ba man ma ku gore ndeysaan mu baax ku ma bëgg te yàlla ndeysaan koo xam ne bu ma jógee fii ba deux heures du yi déggante ma ak moom wallaay xam nga des fois lim Sénégal dafa metti mm. lim Sénégal dafa metti mais ku ne xam na entre parenthèses mm. ibbi naa ñaari entre def ci ay juémé mm. kii fa jël wala déggalal foofal demal ci kër jàng naa la maa la ko ci kër maa la koy fayal sa gën ko yiw na sa gën gi ci doyal ci kër lii tax nga wala sadaka satambala eni yakus kukus yow wayni sukuyu jaanu di dubo man si tutu mbayka wala sole xaani di la man léegi léegi léegi léegi liggéey naa démb añuma yëru ma tey xoolal man liggéey ba ki démb añuma yëru ma tey balaa liggéeyal si nekk ay jëfandiku wax leen tawfeex ca kaw. tawfeex ca kaw. wax leen tawfeex ca kaw. tawfeex ca kaw. wax leen tawfeex ca kaw. tawfeex ca kaw. dëgg dëgg dëgg ca kaw. tawfeex. Kekep king kun karam karam karam parce que dañuy nekk. xoolal tawfeex. waaw tawfeex. waaw loo ma digal ma def. tawfeex waaw. tawfeex. loo ma digal ma def. tawfeex. loo ma digal ma def. nit ñi féex nañu. tawfeex. loo ma digal ma def. koo ñaanal yàlla yóbbu. tawfeex. loo ma digal ma def. koo ñaanal yàlla nangul ko. tawfeex. loo ma digal ma def. xoolal. dëgg dëgg dëgg dëgg yàlla nga fekke déwén ndaw seexkat ku mu ñaanal yàlla nangul ko tu yàlla yóbbu ko ca kaw a kaw daw feex muy ñaanal nit ñi ku mu ñaanal yàlla la yërëm. teral sa kenn du la yërëm. jëlaat la bëgg tukki la bëgg te amul paas te oto la bëgg. tukki ba cey oto ba cey paas ba ay waay tukki tukki tukki tukki tukki tukki tukki tukki tukki tukki tukki tukki waaw tukki tukki ak paas ñu dem Fuuta ñu dem Fuuta ñu dem Fuuta bu ñu dee dem dañuy dem Fuuta Fuuta oto bi kay bu tàkkee dañuy dem Fuuta dañuy dem Fuuta laaj bàyyi ma baay moor baay moor fay xam ay waay baay moor baay moor yii yàlla <laughs> ñi ma la doon wax ñii ay police la jeel nga jëm jeel yaa ko jeel fu mu dëkk lu xew fuuta ah. lu xew fuuta ñu dem fuuta lu xew fuuta samay mbokk samay mbokk lu xew fuuta halpulaar yi daaw da jaar am laay doon yoroo sal voertuig. Look out voertuig. Hij rent zo. Look out voertuig. Maak het zo. Look out voertuig. Je rent voertuig. Look out voertuig. Je rent voertuig. Look out voertuig. Je rent voertuig. Look out voertuig. Je rent voertuig. Look out voertuig. Allah dalli. Allah dalli. Allah dalli. Ayo. Voertuig.